askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def waxu nag lu ay di jàmbat jaloore ku ko def ku ne laaj na nag ñu daat lay jaajëfal gàcca ngalaama war nag ñi nga xamante nii ñoom la la solo yéenekaay xëy fësal ci xët mu njëkk ñu ni Macky Sall def na jaloore de mu ni nag bu doon am mbër mu daan danaan ma limal leen Cheikh si soxo Sissoko Mamadou Seck Habib Thiam Pape Diop waaye kenn tegu ko fa gët Souleymane Ndéné Ndiaye yéene kay bii di la Soleil moo ko fësal nag ci xëtam bu njëkk waaye li yéem ñépp mooy ndaamal Kajoor borom tabaski lool li ana sa Seck mayel bët yéene kay bii di la Soleil di la Soleil ba tey ànd ak ñun ci Souleymane Ndéné Ndiaye ni ñu ah ni ki démb de la lépp xew waaye tamit ni ki démb la génn PDS réew mi quotidien addu nag ci li nga xamante ni moo xew ci réew mi nee na nag décoré ga de sagal na wane na diggante président de la république di Macky Sall ak ki nga xamante ni moo di Jules Ndéné ñu yamu ca ñu ni góor gi nag gàddu nay loxoom teg ca bopp ba mayel bët yéenekaay bi direct info ni ko dàng fàng ci xëtam bu njëkk maye Macky sàll rax ci dolli nag di laaj kuy téye Macky 2017 Macky mii de day dem mayal bët yéenekaay bi lam ca teg PDS fi mu toll nii amuñu jàmm yëral yéenekaay bi nga xool jóg a ca am ñu ni fi mu toll ni daal màngaan ga door ñu ni jamono ji APR dafa xew ñi nga xamante nii ñooy amal coggal gi wala transhumance ki ñoom nag mën nañ leen a fësal ci xët mu njëkk yéenekaay bi mu ni après Awa Ndiaye innocence tap Sitor Ndour ñu ni Bekaay Diop ñoom nag ñoom ñëpp ne ko ànd nañu daal di jubali ca ka nga xamante ni moo di président Macky Sall yemul ci loolu de fësal na ko ci xëtam bu njëkk waaye nag de li jaral laaj moo di lan diggante Macky Sall ak Khalifa Sall 2017 jile de APRPS enquête yéen a la ñuy tuxu daat ni tàbb ci yéen a bi nga xamante ni moo di laa tribune ñi nga xamante ni nag màngaan gi la ñu amal fa tooy ñu tag lii nga xamante ni moo di yéen bi di la tribune ànd ak ñun ni ñu ku leen i xaar wala ku leen fas yéene dalal ñu ni maître Sidiki Kaba fi mu toll nii nag nee na ci avril bii ñuy dugg rek la fas yéene nag daal di dekkalaat yeneen dossier ci tract de biens mal acquis yamu ca ku wax nag ci traque de biens mal acquis wax coppite gi nga xamante ni am na ci magistrature suprême bi le ñu ne nag loola lu ko lëkkaleeg ki nga xamante ni moo di Karim Wade mi ñu dóor juróom-benn at yàllay kaso Sud Quotidien ñu ni cin lii bu baxee tamit xeeñagul neex le témoin yéenekaay bi mel ni nag kuy indi ay seede ci li nga xamante nii nag moo daal di dal parti démocratique sénégalais ginnaaw góor gi wax nañu ci ngóor si ma ngay wokk ndong yamuñu cëddee ay da njong ñoom it nee nañ ko fësal ci xët mu njëkk yéenekaay bi Serigne Assane Mbacké waaye Toussaint Manga kenn demul mu des ci xët mu njëkk yéenekaay bi di la témoin lañ ko maye li nga xamante nii kay moo yem ñëpp ku yabu ne xalaas moo di lan mooy li nga xamante nii mi ngi xew ci gox goxaat yi ñu ni nag fi mu toll nii ah rumbalaat gi bari na de ngun-nguni gi nag bari na ci commandement territorial bi Abdoulaye Daouda Diallo moom la ñu fësal ci xët mu njëkk yéenekaay bi di laas yamuñu ci loolu keneen koo xamante ni jege ñaayu Macky Sall la ñu ni kooku moo di kan ñu ni Mbagnick Ndiaye Mbagnick Ndiaye nag nee nañ bu ñu Macky Sall waree am ku mu moytu wala ku muy daw Mbagnick Ndiaye la war a doon yéenekaay bi di laas moo ko fësal ki nga xamante ni moo ko wax nag naam du suñuy kàddu moo di Wulu Ndiaye kooku moo di vice président CESE booba la jamono nag ka nga xamante ni sàq am déet lum ci mënti doon baay tuutee des rek maître El Hadji Diouf njombe wala kawtef topp ay samba booy lañ ko mën a dippee ci xët mu njëkk yéenekaay bi di Le Quotidien ñoo dem ca këram ga nekk ca Anne Maris cay jaloor ja nga xamante ni lañ fa def ñu ne maître de dànkaafu na jot na nag daal di yëkkati ay kaddu nee na kenn du ko xoxotal de man duma tapet maître El Hadji Diouf yamu ca nee na nag dama armé wu ci noonu libération yenekaay ànd ak ñun fësal nag ci xëtam bu njëkk royaume de son altesse Rakhni ñu jàll ci waa sport laata ñoo dellu si waat ci yéenekaay bu li nga xamante ni moo di affiche bi jëm ci Le Havre AC Sénégal ni ki tey ñaari waxtu ci ngoon yéenekaay bi di mel ni kuy ñaax nag ñi nga xamante ni moo di suñu gaynde yi ci la ñu daal di tabbiwaat nag ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di Libération mu ñëw ak ñun ci sénégalais bi nga xamante ne nee nañ ko ràpp tëj fukki ati yàlla ak ñaar deful lenn lu dul nag doon sàkk te yemul ci benn rek ñaar la ca def ni ko mbër yi di waxee rek ñam-ñamaat wala door dooraat lu ci mënti doon daal grand place bi ànd naag ñun fësal ci xëtam bu njëkk moo nekkee ci réew mi waaye fu jigéen ñi yëkkatee seen loxo ni ah góor ñee koy def góor ñi yëkkati seen loxo ni ñoom ñoo leen ko def lo yamuñu cëdde waaye télé yi tamit am ci part de responsabilité bu nga xamante ni ñoom it ñu leen koy tuumaal nee na ñu nag série yi nga xamante ni ay série porno la ñu ñu koy dawal naam sociologue ba jibi jaxate am na ci jàngat waaye teewu lit li nga xamante ni moom la ñu fësal ci xët mu njëkk yéenekaay bi ak ci biiram gën a yéemeeti may ko bët grand place yamu ca sëgg di làmb di daaj di màcc lu ko gën a yéeme rekk day lii di compas laf ci yéenekaay jaa ngeen jëf